mu njëkk bu président Bassirou Diomaye Faye ca Touba ak ca Tivaouane dafay dugg ci luy dundal taarixu Sénégal ni ko ñi ko fi jiitu doon defee njiitu mi dafay gën a la relation yi nga xam ni état am na ko ak këru diine yi république bu laïque dafa mës a rafetal jëm ci ñooñee mu dipp lëkkaloo boo xam ni bëri na ci ay fànn ñu koy defee ñuy weccante xalaat état tam di dugal loxoom ci ay projet yoo xam ni danañ ko faral di am mu di musulman wala catholique wala muy kilifa loolee ñenn ñi di ci am xalaatu ñaaw muy dem sax bay jur ñàkk a déggoo faw ñu xam ni laïcité dafay sax sàmm diine ku ne di mën a def li mu gëm te dara du ko ci fekk président de la république Bassirou Diomaye Faye dafa war a sax gën a la waxtaan wi nga xam ni mu ngi koy am ak xalif généraux yi kilifa jàngu bi waaye itam kilifa aada yi faaw itam ñu soppi xalaat ak doxalin jëm ci diggante boobee waaye politique yi société civile ñëpp dugal ci seen yoxoo ngir lëkkaloo boo xam ni dina jur